Hmm. kon ci point boobu fi ñu ci mujjee mooy Ousmane hmm. Sonko nee nañu. Hmm. Euh, pexeem daal mooy su gañee jëlee fi kilifa diine yi defe naa am na loo ci borosé woon. <laughs> Euh, ci ndaje mi mu amoon ak euh, daara yet junj na ko. dafa mel daal gars yi nee nañu moom projet mooy jëlee fi kilifa diine yi jëlee fi daal mbirum jaamu yenn kii yeeg yooyu yow ndax noonu ko ko gisee. ah déedéet man loolu dama ko boole ci xeexu politique rek maanaam ñoom politiciens yi seen biir kenn ku ci nekk yaa ngi fexe loo mën a téye sa moroom di ko ko xeexee léegi nag. ñun askan wi ñun ñoo war a xam ñi nekk pouvoir ak ci opposition bi baat yi ñuy jël di ci manipuler nit ñi pour gañe ko te du nekk baatu dara baatu combat la ki koy wax sax souvent di ko gëm ak li ngay xam ne dëgg la ci ñoom. li nga xam ne dëgg la mais man choix bi maa ngi jàpp ne yàpp ñu mooy wane ne Ousmane Sonko mën na ñëw fii jëlee fi tariix mbaa sëriñ kon seriñ si fi ñu toog dëgërul. chefu wahabit yi ka ca gën a mag Mouhamad Ibnul Abdul Wahab boo ko dekkalaatoon. nga indi ko jox ko senegal mu jiite ko. Mhm. par la force laa wax de. Mhm. dana dem màggal dana dem gàmm. <laughs> réew mii ni mu nii. dégg naa la. <laughs> buñ jëloon wahabit bi gën a sadik ci àddina ñu dénk ko réew mi par la fors mhm. dana jëflanteeg ñoom dana gàmm ji dana màggali bu ko neexee bu ko naqaree. réew mi moo bindoo noonu. loolu kenn mënu ko fi dindi. discours politique la pour man booy boo ñu yemale ko ca terrain politique ba. d'accord. Euh, ñu xam ne ñiy xeex ñoo koy xeexee seen biir mais soxlawul ñu yóbbul ko kilifa yi. Uh-huh. bu mu orienté ñi nga xam ne ay euh, religieux lañ. Uh-huh. ñu war a def seen i thèmes yu am solo yu mën a jëriñ askan wi ñu ne ko fa kupp uh-huh. jël debaawu ay politiciens di ko def ay thèmes gàmm. ak ay thèmes mu màggal. ak ay thèmes mu appel. ak ay thèmes ziar loolu mën nañ ko bàyyi ca terrain politique bi ñun ñu xoolaat thème yoo xam ne mën na jëriñ taalibe yi ñoom ñu combat seen combat politique mais tarixa moom fii ci réew mi. Hmm. ku gëm ne am na ku ko fi mën a jëlee hmm. yow xamoo tarix d'accord léegi nag ñu dem kër Ousmane Sonko hmm. imaam yéen da ngeen àndandoo woon yéen mu imaam man ngeen lu ne yéen sëriñ daara yi waaw yéen a wuyu ji woon président Sall fële ca Sall ba nekk ca jam ñaajo jam ñaajo ñenn ci ñun waaw yéen a demaatoon di wuy ji Ousmane Sonko créé benn mouvement bu tudd doomu daara yi. Ah, dem Ousmane Sonko di fa def ay aaya ngeen di fi si di yuuxu rek. waaw ah, ñenn ci ñun waaw. waaw léegi imam <laughs> waaw yéen ci yéen balaa dara sax yow demoon nga. mukk ci àddina dew ma de. waaw léegi bala ñoo ñëw ci sujet bi lu tax demoo. waaw li tax dew ma mooy man du ma politicien te gëw ma ne damaa war a politique taxul moo wax ne politique dafa xaraam. mais ñee ne politique wuñ de. ah dañuy politique nag. ah fee moom ña fa demoon dañuy politique. politique la de. Hmm. waaw politique pure et dure loolu moom amul benn werante. ok tekkiwul ne dafa xaraam. Hmm. mais ku mu neex nga am ambition politique. Ah, man yow da ngaa amul ambition politique yow. non man awma ambition politique mais politique bi ñor na ma. d'accord man damay topp politique vingt quatre heures sur vingt quatre. Hmm. li tax bugguma la cay lor di daanu sama kaw. heure bu ci nekk bëgg naa xam fan laay taxaw. mais nag bugguma bokk ci ñuy porter combat boobu. ni mu amee ñoo xam ne ay médecins lañ bëgg doon am ñoo xam ne ay juge lañ bëgg doon am ñoo xam ne ay animateur lañ bëgg doon am ñoo xam ne ay journaliste am ñoo xam ne ay sëriñu daara lañ bëgg a doon mhm. bëgg doon sëriñu daara nag du la tere nga xam lii xew ci dëkk bi waaw lii xew ci dëkk bi mhm. mooy politique man jàpp naa ne ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne bokkuñ ci benn parti politique te bëgguñoo bokk ci benn parti politique mhm. dañoo bëgg a téye daara ji di xool su ëllëgee ku fi mën a toog muy Macky muy keneen boo amee loo yëkkati jëme ci daar yi ñu ñu jóg taxaw jàkkaarloo. mais nee nañu seen discours yéen waa ànd sàmm jikko yéen ñi hmm. seen discours daan roog bu Ousmane Sonko. waaw loolu mën naa nekk man. Ah, jàpp da ngeen a bokki yéen ak Ousmane da ngeen a bokki bagage daal dafa ne ay mbir da ngeen ko nuróole. xam nga nag Sénégal moom léegi dafa dem ba. waaw baatu patriote sax kenn ñemeetu koo wax. waa boo ko waxee yow patriote nga ah bien sûr mais kan moo nekkul patriote c'est-à-dire mais tey mu baal mi ñi ma wut a taxaw ni man patriote la. loolu mooy problème parce que bu ko waxee kon ñu ni Sonko la bokk. Ousmane Sonko fi la fekk patriote. <laughs> waaw Ousmane Sonko fi la fekk résistance. waaw mais léegi yooyu am ñoo xam ne ñemetuñ tuju baat boobu parce que boo ko waxee ñu ne la Pastef nga bokk. non baat yooyu fi la ko fekk. ah kon fi la ko Ousmane fekk. waaw fi la ko fekk. Ahmed Khalifa Niass nee que parti am looloo ci parce que bay dégg waa APR bu am dañ naan patriote yi ñooy def lii te xam ñu ne gis loolu rek la hmm. nekk patriote tekkiwul na Pastef nga bokk mais léegi boo ne woon patriote laa bokk hmm. ñemewu bon laa ñu ne la xanaa Ousmane Sonko nga àndal hmm. jàpp naa ne esprit yi dañoo fekkante Sonko dafa ñëw fekk nit ñi di xalaat loolu mu ñëw incarné ko ah, jàpp naa ne nag lu baax la lu baax la mu ñëw gis ne patriotisme dañ ko war a jëmmal warul nekk rek benn euh, slogan bu ñuy wax mu porter combat bi li ëpp ci ndaw ñi gis seen bopp ci nii mu ko porter parce que dafa fekk ñu koy xalaat. Mhm. man wax naa benn mbokk ne ko ñun daanañ julli ji àjjuma ba ñëw toog kër ga di waxtaan ay 2013 2014 ba 2015. Mhm. yi yii nuy waxtaanee tey ci réew meeg jafe-jafe yeeg injustice bi am ak dañ ko daan waxtaanee ba yow boo deful attention da nga naan ñii ay opposants pur lañu. dëgg la. c'est-à-dire loolu dama bëgg wone wane usman Ousmane Sonko daf ñu fekk ñu di ko def. léegi bu àndee discours bu bu mu dajeeg moom ñu ne yéen moom ngeen def mais ànd saamu jikko yi bi muy judd ñu bëri xamuñu Ousmane Sonko. dëgg la Ousmane Sonko ñëw fekk ñu nekk ci combat bi mu gis ci boppam. ñu koy def mu ñëw toog. ñu ne ñu moom ngeen ànd ak. te Ousmane Sonko buy def meeting duñu ñu fa gis. waaw du def ñun ñuy def suñu dajee mu ñëw. ñu rafetlu ko nag lool. mais da ngeen koy jàppale ci communication. ndax ni ngeen di communiquer arrangé wul état. moom moo jàppale boppam. Ah. moo leen fekk si seen yoon la sëñ Fall daan wax ku ñu yóbbaale da lay fekk ca yoon wa moom moo ñëw gis ne mbooloo mii fi nu jëm hmm. man awma ci problème mu ñëw dugg sympathisant ya fa nekk yépp nekkoon kii mën naa porter suñu combat ñooñu am nañ liberté dem toppi ko mi ngi mel ni waa daara ji ñi fa dem bërki demb hmm. ñooñu libre nañu pour ñu dem d'accord foofu laa bëgg ñu dugg fa sax léegi hmm. noo gisee nag ndajeem daara jooju ak ban jàngat nga ci gis bi nga gisee affaire bi waaw xanaa xumbaay bi daal nañ doon tàccoo bu ma leen doon xelal dinaa ne leen buñ ko def. <laughs> ah ab ah, eh, sëriñ daara wër ah, tàcc sëriñ daara yi tëb di tàcc moom mënoon naa ñàkk après ci ngay gis ñàkk sago gi nu am. ci politicien bi ñu fekki loolu nag li muy jur mooy. Ah. faiblesse la leen nar a jural ëllëg. mooy après doo ko mën a wax sa soxla. gis nga mbëggeel gu ëpp. Mhm. day tax doo wax sa soxla. te dafa mel ni ña fa dem. mbëggeel gu ëpp lañ fa demee ba fàtte nañ seen jafe-jafe yépp dafa mel ni daara nekkul ci benn jafe-jafe ñoom daal ba ñu gisee soo Sonko ñëw fàtte nañ lépp ñu ngi tàccu di kaf di ree mm-hmm. libre nañ nag pour ñu politique mm-hmm. parce que loolu nag lu bees la ci réew mi mësul woon am benn mouvement wu sëriñ daara ci biir parti politique mm-hmm. loolu moom c'est la première fois du Sénégal daan na am mais ay arabisants ñoo ko daan def les arabisants di PS arabisants PDS arabisants APR mënoon na nekk arabes yi sans Pastef du ma bett loolu yàgg naa am depuis Senghor nag laa wax de ah imam Moustapha Guèye mii moo leen daan jiite daa iman mais nag ay sëriñu daara moom sëriñu daara yu bokk ci parti politique am fa mouvement tuddee ko modab xaw ma mod waaw modab xaw ma ah, mouvement doomu daara waaw mouvement doomu daara mhm. loolu mu ngi door a am ci politique parce que sëriñu daara yi ñu ëpp dañ daan def nii rek toog seen daara bu voté jotee ñu voté daa nañ far nag Mhm. sëriñu daara yi dañuy far mais engagé wu mhm. dem jënd carte parti politique mhm. daawul am ci sëriñu daara yi léegi nag ñu ko def man leen rek laa leen ciy ñaan ñu ngi leen ciy encouragé libre nañu waaye nañu am faydaay toogal fa daara nañu fexe ba décision yi ñuy jël ca parti ba nañuy defendre daara fuñ ca mën a toll ñoom loolu mooy seen yóbbu foofu la leen fa yóbbu mooy ñu fexe ba lii daara yi di jooy fii ñoom bis bu parti boobu ñëwee kenn dootu ko déggati ci réew mi ou bien bu ñu ko fiy dégg lu néew lay doon waaye bu dee dañ fa na dem nii di tàccu rek bu ëllëgee ñu ami poste uh-huh. jiite fi ay poste jiite fii toogaat di lekk uh-huh. loolu moom mooy ay politiciens yu sotti ngeen di doon noo fa gisee discours Ousmane Sonko bi nam aaya ak yooyu xam naa yàq na fa wala li mu wax noonu la waaw non yàqul aaya nag xanaa kay li ma jooyloo ci Sénégal rek mooy uh-huh. politiciens yi moom yal na leen yàlla yërëm maanaam Ousmane Sonko day tudd aaya alxuraan mu nekk kéemaan waaw koo xam ne ab jullit nga waaw di doomu jullit juddoo ci lislaam yaroo ci lislaam ba am 40 ans. mais boo waxee aaya alxuraan sax mu yéem ñëpp. moo lay wan ne ñun jullit yi. am est-ce que dañu jàpp ne ci géew bi mu nekk. Oh. nekk fa def ay yitte ba tollu foofu dafa jafe. waa looloo tax ma ne politiciens yi ndax ñu dégg naa ci euh, histoire ñu ni moom. dem na ba toll fi ma toll ba am ay ndomba tànk. waaw loolu moom doo ko def yitte pour loolu moom loolu moom effort personnel la. waa te lu jar a saluer la. Hmm. ndax politiciens yi dañoo fonkul alxuraan. moo tax ma ne politiciens yi ñoom yàlla leen yàlla yërëm bu demee bu bu tuddee ay alxuraan mu nekk kéemaan. Hmm. surtout loo xam ne jàngoo ko bi ngay ndaw da dem ba nekk mag nga yëg ne man en tant que jullit. Hmm. dama war a jàngi hmm. nga dem di dem ci daara joo xam ne ay xale nga fay fekk ñu di la jàngal ñii di la reetaan am courage di ko jàng ba mën a wax ay yu leeree wax dëgg yàlla alxuraan ju set lay wax. d'accord bon loolu li muy tegtale mooy lancer ne défi politiciens yi. mooy jàngi leen alxuraan yéen tamit. bu demee politicien bu waxee baatu alxuraan mu nekk kéemaan. moo lay wan ne arène politique bii lu ñu war a defaraat la. politique. tekkiwul ne waroo jàngal alxuraan. Mhm. da nga war a jàng alxuraan da ngaa war a jub da ngaa war a mën a. jaamu yàlla mhm. mais rafetlu nañu nag mhm. la fait que mu yàpp alxuraan ndax loolu dafay influencer nit ñi ñu dem jàngi alxuraan mhm. ndax gis naa ñoo xam ne biir na ma ne ñii moom mosuñu ubbi kaamilu alxuraan dëgg la ñu commencé di ko déglu naan ndeysaan di daanu naan aaye yi comme dañ koy def <laughs> cest à lu muy jàng alxuraan xëy na dina influencer ñoo xam ne dana tax ñu dem jàngi alxuraan d'accord waaye daal maa ngi ñaax ñu daara yi ñoom it ñu taxawal fa daara te bañ a jàpp ne nag képp ku fa demul rek nekkoo ci yoon wa. d' accord ah. mi ngi noonu imaam jeexal nañu euh, tàkk tàkk tàkk tàkk ah, ñu ngi may sax soññi noonu. waaw waaw euh, Modou mu baal ma ko ci une minute rek da jàpp ni daara mi ngi ci loxo dafa dafa jaar euh, ci yoonu nekk ci loxo doomu daara yi voilà. waaw man nag lii ma gis muy xeeñ nii moom. Ah. incha allahu taala fii ak diir bu néew. Hmm. daara réew mi ci loxo doomu daara lay nekk mbaa ka koy yor. Hmm. ay doomu daara rek koy wër. Hmm. waaw fa la Sénégal tollu de. ay dictateur ngeen de non du ñu ay dictateur sax. dañoo dañoo sonn rek xam nga nag eh, injustice bu ñu teg seen kaw mu yàgg. ñu di ko jooytu léegi mel ni na gaa yaa ngi yeewu ndànk-ndànk. Mhm. yeewu googu nuy yeewu gëm ne nag politique bi mën nañ ko booleek diine mais ci kaw nga amaale sa fayda yoo fa yóbbaale ba boo demee nekkal fa daara. macha allah loolu moom jar naa bàyyi xel.